الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجلن دنيا دلن زيار تيارو تدوين نك ديارو سفر ديارو سرين تبا رضي الله تعالى عنه تي ويارو ينغحب نكيلا سنتاني وان تفكفاني أجرم يتم نكو تي سنتلي برامل ndax xewal yoyu ci bis bobu la bo ndax nat bi jur xewal gi ci bis bobu tamlu won kon su jubee baxna di fatali nit ñi lu mel fatali ko nak anam go xane waxtane waxtaane sëriñ mag bi anhu mom di santulo moy kan moy kan ci ay jikom ndax jikko moy nit jikko ci la ñuy gënee jikko ci lañuy ñuy kon fàttali lenn ci ay jikkoom dana am solo lool ci waxtu wi ñuy màggal ndigalam loolu radiallahu taala an mu nekk mu war a nekk ab soññ war a nekk ay bind war a nekk ay waar ci képp koo xam ne lu baax ñor na la Sëriñ Tuubaa moom nga xam ne radiallahu anhu yàlla da ko bindoon taw féexale ko ak mat nag yi nga xam ne ñu néew ci jàmm ñoo koy def amoon na ko waaye yàlla bind ko it mu nekk ku yàlla nekk rabbaani day ñëw àdduna rek indiwaale koo xam ne yàlla rek ko ñor muy jagle gu rëy la sëriñ Mahmoud Bachir doomam radiyallahu anhu ci Minanul Baaqi wax na ne sëriñ bi day min awwali nachatihi kaana majbulan ala mahabbati mujidi ci njëlbéenam rek daa sosu bëgg ci bëgg yàlla dëgg yàlla wóolu yàlla doyloo yàlla ak dox jëm ci yàlla nga xam ne teel di bàyyi xel waxtaan waxtaani gaañu baax ñi ba jikko yi bëgg yàlla ak nekk ab rabbaani yi nekk nitu yàlla teel ci moom wax nañ ne daan na taxaw guddi sax te booba dugg guddaara dema guddaara àggagut yi fu ñu koy fu ñu fu ñu koy joxe ndigalul jaamu yàlla yi ndax dégg na way juróom daan wax naan bokk na ci baaxub gaañ yu baax ñi xiyaamul lay bu guddi jotee mu jóg di taxaw loolu kon day wane ne ni mu mel nii négut ba doon ki ki mu doon doon a mel noonu da ko ñëwaale àdduna ñëwaale bu baax teela moytu ay safaan yalla mo ñaale ko mu teel a moytu ay safaan jikko yi tedd yi ñi tuddi makarim akhlaq yalla teel ko def ci mom te yooye bokku na ci li wax taqwa melokaanu Sëñ Tuubaa woon taqwa nak moy bayyi ay téré ak daf ndigal ñi ki am taqwa moy ki xane li yalla téré lepp ba na li yalla digal lepp lam ci man mom def na lol bokku na ci li nga xamne ne bi ràññikoon ko nako ci njëlbéenam te it taqwa nak ñetti ñetti degeere la am yo xamne ne lu si ñu doon xel taqwa bi nga xamne moy tax nit euh, muccu ci mbugal moy baña bokkal yalla dara bo mo ci jitu yow xam wax wa alzamahum kalimata taqwa ñaaral taqwa moy moytu mooy muy itinaab bàyyi bàyyi def lu wër ci ay wax ak i jëf loolu ñu tudd taqwa sharia ci sharia mooy taqwa moom la waxoon ne wala wana ahlal qura amanu taqwa la fatahna alayhi barakatin minas samaa'i wal ard bu nit ñi bàyyi woon mooy yàlla ci kaw suuf si xéwal dootu fi ko tasaaroo doy sëkk ñetteelu taqwa nag mooy bi féete kaw nga xam ne moom nit ki day àgg ci yàlla rek lay tey ci kanamam mooy li yàlla wax ne laa wattaqullaha haqqa tuqaatihi sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu ñetti xeeti daraje taqwa yépp teel na ko matal li koy firndeel bokk na ci yu bare bari maanaam mësta ñàkk tegu ci yoon naan amut ndaw gu muy jaar gu ñuy wax amu ko mooy koo xam ne ba mu feeñee nit ñi di ko teg bët ba ni mu làqoo amu fi lu ñu wax naan fii ay jamono sàngam mu mel melokaan woo xam ne du baax walla gën ñam ñam jamonoonteel loole nag li la wale jamono di ko suuxat di ko yàgg yaatal kon li ñuy wax istiqaama moom la ñëwaale àdduna te tegu ci yoon yu xoj te loolu moo ñu jàngaloon ci ginnaaw bi jàng ay njàngale wax na ne jaam bi bul ëpp bul yées waaye na nga nekk mustaqim te mooy sax ci sunna sax ci yoon wi nga xam ne moom lañu fi indi bàyyi ko fi ñu war cee jaar moo tax ñu ko doon taggee loolu lañ ko taggee kon istiqaama boo xam ne ëppul yeesut loolu melokaanu sëriñ bi dafa tegu ci yoon ëppul yeesut ndax ëpp yees benn baaxu ci benn baaxu ci moo tax am ko doon tagg ne hidayatuhu qasdun ida dayaqa alladi tasawafa jahlan aw tawassaa dul fiqhi bu amee ay suufi yoo xam ne dañuy ëppal ba xatal mbiri ba mu jéggi dayoo walla ay fuqaa yoo xam ne dañuy sagan woyofal mbiri yi ba lu bari lu ñuy téré sax yu ñu ñu bëkk koo daganal sëriñ mom ñëkkut fofu ci digg ci digg bi la nekk sàmmoon lool nak sam sam sam moy ko xamne ne lu ñuy lu ñu wu sax dang koy bayyi ngir baña ag ci lu ñuy téré té ñu loolu ci bi la ko téel tàmbali tere sam lool ba ci na ma ngi dañu wax naan Mamor and sëli day amna dom doom ci xam-xam ci diine ci sàmm mësee su ko gis ci ñoom jamonoom ñu naan ah kii de ndaw la waaye daa mel ne waliyu la de loolu mag ñi dañ ko daan waxtaane ci ndaw booba sëñ ci raw la toll kon mel ni melokaan yooyu du koo ñëwaale jamono radiyallahu taala anhu wax nañ ne bant bu ñuy sekkaritoo mosu koo jële ci perum jàmbur lay nit am soxla yéen yett xalimu wala nangam dem fekk ab sàkkar rek nga daa tee dagg dem yett nga defu dal ala la jamur go jël ci lul ciow ci ciow coobaram la loolu du wara sëñ bi ne waxut xalima waaye bantub sécurité mosu go jël ci euh, ci ci sakatu jàmbur ndax rek sam kon melokan taqwa bu fess na lol ci euh feñ lol ci ay dundam te loolu Cheikh Mawlana Diop Dagana moo ko nettali ci an-Nubzul Mubaraka lépp woo xam ne aw ñam buñ mës a indi ci euh, ci si fa mu nekk bu cay sikk sàkka wala wóoluwul fi mu jógee dana fexe ba du ci jëfandiku loolu ci ndaw jamono joo xam ne it ñam yëmmutoon mësta jëfandiku ba sóori tey mos jóg loolu na ko yàlla moo ñëwale kon àdduna lii firndeel sàmm googu sëñ eh, Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax na ci àdduna sama baraka ne mas naa ànd ak moom sëriñ bi ak ma Massamba Diop Sam am wóllëre wuñ seeti woon mu defaral leen aw ñam ab laax la def ca Euh, dax ñu tudd dax waaye nag waxu leen dara da koo teg noonu rek teg laax bi waaye ñoom boo ñuy xewlu laalu dax ba ndax nee na juum ci bàyyi lu lew moom ma gënal juum ci jël loo xam ne lënt la maanaa jëfandikoo ko te fekk boroom joxuma ko mu ne ma man nga koo jël mu bàyyi ko fa moo tax moom moo ma gënal nga ne dañoo xewlu bàyyi ko fa bi bi bi ki leen doon gànn la ñëwee ci la xam ne jëfandikoo wuñ ko ndax waxu leen woon dara ñëw leen mën ngeen ko jëfandikoo ñu ko teg rek sëriñ bi fooful ak sàmmam nga xam ne teel a bëgg lu baax ak teel caa jëm moom foo foo ko takk wees na loolu jikko joo xam ne sëriñ Tuubaa ñu ko woon na ko radiyallaahu taala anhu waaye teel a euh, dëddu àdduna ak doylu loolu sëriñ bu Mbàkke Buso radiyallahu anhu bokk na ci li mu li wax ni moom ni ko yàlla binde woon mu tuuti sew buy jëfandiku tuuti la jëfandiku buy naan tuut tey naan nee na li ko waral ci jamono mu am nekk ak sëriñ bi xay na jamono yi sëriñ bi nekkee Mbàkke yi taalif Masaalikul Jinaan nga xam ne moom ñoo doon nekk mu taxaw moom lool ca la tàmmee jëfandiku néeg boobu day mujj bu fa jógee bu jëfandikoo tee lu lu nar a ëpp sax da koy da koy sonal ba doxa ci nekk nit ku tuuti te fekk bindam na ko yàlla bind mel na ne mënoon naa mënoon naa mënoon naa bañ waaye ab yar buñ ko yar ci néewal li ñuy jëfandikoo moo ko melal noonu nee na liñ daan naan ci bis bi maanaam bari ci loxo du ko ëpp as comp as comp ci baraay it moom leen xewloo te loolu am nañ ci ab diir boo xam ne moom leen def ci la sëñ Mbàkke wax ne ginnaaw loolu saa bu weesoo te toll noonu rek mu indi lu ko jafe-jafe waaye bokk na ci melokaani sëriñ bi ak dara ji ku yàlla jox ak cër bi mu am te mu xam ko waaye teewut ku wàcce woon boppam la ku wàcce woon boppam la ku boppam la ci kanam ay bokkam ak kanam ay kilifaam daan wàcce nit ñëpp seen wàccuwaay jote gu ko booleeg ak nit lu mu seq ak nit mooy mu di ko sàmm ay waajuram mu jàppale ni waajur ay rakkam mu jàppale ay rakk ay magam mu jàppale ay mag mu doon jëflante ñëpp kenn koy daal bu dajee yow jox la sa cër buy bind bu wax ak yow da xam ne mi ngi lay bàyyi xel mu ngi lay jox cër waaye nag bokk na ci ay melokaanam ko amoon chaxsiya li ñuy wax personnalité jëmm joo xam ne koo gis ko waj wekk saa boo moom xam ne kilifa gi nii am xëyba am waqaar bu jéggi dayoo sëriñ Bachiru radiyallahu anhu nettali na ci meneen ne am na ci buuri adduna yi koo xam ne mës naa ñëwal sëriñ bi bam mu Mamour Anta Sali radiyallahu anhu di wajuru suñu la woon seet si toogoon na moom ñu waxtaan bam nap noppi ba rombu génnee bi mu toog ci ab sajada di japp sam euh, kii boobee sambalaw bela jaar fa ne day nuyu sëriñ touba xati nuyu jóge ci jénne ci wajuram bim mu dikkee bi daal di wàcc der bi mu laal nekkoon toogoon di jàpp laalal ko ngir bëgg mu toog ci teral ko ndax teraanga la kilifa la waaye nungu caa toog nungu caa toog xam kon mu ngi doon bàyyi xel ci moom loo xam ne sax cër bi way juróom am ak doon lépp teewul ba mu dikkee daa toogoon ak moom bu fii sëriñ bi jox ko ab der nungu caa kon loolu wane ne xëy ba kooku yàlla moo ñaareel ba Euh, kilifa yi sax dañ ko joxoon ab cër waaye nag bokk na ci ay melokaanam it sëriñ bi ku amoon dogu la ku jàmbaare la woon ku ñeme la woon ndax bokk na ci rek xupp yeeg ixraat yi nga xam ne noonu yi fu ne def nañ ko fa taxut mu mas a soppi taxut mu xëy wax lu bokkut li mu wax wala mu def lu bokkut li mu daan def ba ci bi mu nekk ci noon ya noonu la wéyal moom daal yàlla lay bàyyi xel walaa yaxaa walaa yaxaafu fillaahi lawmata laa'im dëgg rek lay àndal fu dëgg jëm mu jëm foofu fu dëgg woon ginnaaw moom ko ginnaaw ànd ak goo xam ne ak jublu ci yàlla bañu jublu feneen moo ko may lim am ak yitte ju joo xam ne tiim na yi yëpp ko tax a jóg moom boo xoolee ay jaar jaaram baax nekk mu di ko mi ngi doon dox waaye lu mu agsi rek xeeb loola tàmbalee jër ci wérde yi jëlee ko ci way juram jële ko ci Cheikh Sidé jëlee ko ci ñu bari ñoo xam ne mu ngi doon dox rek di wut ak mat ba bi bi bi ko sunu borom wane léegi Cheikh Abdou Khadir Jilani waaye mu wéyee dox rek ba àgg ci daj dëpp gi nag mu yonent yàlla Muhammad alayhi mu jaayanteeg moom wax ne tey mooy sama kilifa kon loolu yëttu ju kaay moo koy may kon am kay woon yitte la ci jamono joo xam ne nit ñi am na ci mbaax bu ñu fu ma see àggaree daal taxaw daal jàpp doy moom nag amut ci mbaax yemukaay moo tax mu dem ba àgg ci ñëw waxtaan la bokk na ci ay melokaanam it ku mën a muñ la woon Tuubaa li ko teg ci ay nattu ay noonam teg ko ko mu daan teg moom fu ne mësta wonk mësta saalit lépp day sant yàlla eh, boroom xam-xam yi am xam mën a seetantal dañuy seetlu ne mbindam min mbind day day day day dañ ciy xamee tolluwaayu nit bu dee ci jafe-jafe la toll day feeñ ci mbind mi bu tolloo ci jamonoy xéewal bi day feeñ waaye mbindum sëriñ bi moom la mu doon bind ca ca ca ca ca géej ga nga xam ne ci digg nattu ci digg noonam ñu koy teg tiis yu ne ci rafetaay ak ci mataay doo ko xàmmeeg li doon bind bu nekkee Tuubaa ne ci biir njabootam ñu kon nattu bi li metti metti moom ci kaw layam waaye mom, ci biiram waxtu ne mi ngi sant yàlla kon ku mënoon a muñ la koo xam ne li ñuy wax ar rida la jël maanaam ndax mën a muñ sax baax na waaye nag li ko gën mooy nangu gërëm dogal bi xam ne yàlla lim dogal daa gën ci yow du ñaxtu du jàmbat ku dul boromam mi ko bind te jàmbat jëme ci yàlla jaamu yàlla moo tax ma ko def ñi koy yëjjëg nga xam ne àgg na ci noon yi di ko teg yoo xam ne moom néew na ku ko mën a dékku di ko booleeg ñi gën a yewoo di ko ci ay ay ci seeni seeni seeni njaboot seeni bokk seeni seeni nit waaye ñu koy wan di ko teg yoo xam ne waaye teewul mu mujj rek nee na ala innani uthni ala xayri munamin wala ashraki lil xalqi min faqdi anami du ma jàmbat mbindeef ñàkk ay xéewal ñàkk dara du tax ma jàmbat ko mbindeef nga xam ne nit doomu aadama mën dafa dara yàlla rek mën a faj kon ku mënoon a muñ la bokk na ci ay jikko moom sëriñ bi ku tabe woon li ko yàlla sédd ci ay daraja ci ay ay ay ay ay lépp da ko bokk jaam yàlla dañ koo séddale doy na firnde ak asakay xaalis dañuy wax ne war warul sëriñ bi te li ko doon dikkal par bis mat nisaab par bis ngay wax li nga xam ne ku ko am ci alal asaka war la mën nañ jàppale li doon ñëwal sëñ par bis day mën nisaab ci asaka waru ko ndax lan asaka ngir mu war ni da ngay am nisaab denc ko am moom na ko xulaat waaye lu ñëw rek delloo ci jaamu yàlla Cheikh Sidi waxoon na ne jàkkaam ji mbooloo fay daje ñii dañu fi ñëw di jaamu si yàlla waaye ñii dañuy ñëw di moslu si ñu ku génn it bëgg kon loolu ak tab la goo xam ne jéggi woon a bu doon mbubb len naadu gànnaar waxoon na ko ne sëriñ bi tab bu doon mbubb mu ne moo ko sol sol goo xam ne ko moom kenn abalub ko loolu di jikko ju kawe it nag ndax jikko suñu boroma jikko yonent bi sallallahu alayhi mu roy ko ci lool amaloon njariñ mboolem mbindeef yàlla yi ay ci ay noonam sax ñu ko gënoon teg ay ay nattu nga xam ne gënoon koo jaxaseeg noonu yi ginnaaw bi ñëw nañ ko fekk njareem sëñ bi sutura leen dimbali leen ña xam mbiree mu xamal ne ña ko ñu ko xam buñ ko xam ndax am na ci ñoo xam ne bu ñu yëgoon ni diw mii moo doon def li sëriñ bi moom duñ bàyyi mu jàll waaye day ñëw sëñ bi suturaal ko teral ko bàyyi ko mu dem ci koo xam ne mën nañu wax ne la ëpp ci ya ko doon dal ña ko doon soogee ca ci la bokk kon kooku ak tabam foo ko takk wees moo tax benn naar doon nga xam ne sëriñ bi day euh, suuf soo xam ne sëriñ baa nga fa bu tawutit duñu wàññi dara xéewal gi wàcc ci sëriñ bi dana mën a wóotu taw ci ñoom loolu na ne ku ku tabale euh, muy koo xam ne it tab geek mbaax geek ngeene li ñu wax yépp amutoon nu mu ko jagleel ni dana baax ba njëkk ko sawir waaye da ko yamale fenn mom ak njabotam ay bokkam ay taalibeem ak fu julli mëna nek ba ci ay nonam baax gi dañ ko doon da ko def la moom lool nag mo di mat kon sëriñ bi mat gi la ko yàlla indaale adduna jikko yu rafet yi motax mu kawe nit ñi ay mbokam nangul ko jàmbur yi nangul ko ay noonam sax mujj seere ne kii euh, ci mbaax amu fi amul kenn ci ña ko doon tuumaal ñoo mujj wax loolu jikko ju rafet jooju nag moo tax mu sang ndax jikko ci la ñuy yàlla ba muy tagg yonent yàlla moom ay salaam juddu ba rafet na loolu tagg ko ci way nekk la ala xuluqin azim la ko wax moo tax sëriñ bi it ràññi ko lool ci jikko yi ba sang ay ay jamonoom nekk jamonoom loolu it di lu ñu war a roy ci moom kon képp koo xam ne euh, euh, ci ci sëriñ bi nga bokk ak noo ci bokkee jàppal ne yii ñuy wax nii ci ay jikko yu rafet yi bul wax ne mënu cee mel ne sëriñ bi waaye sëriñ Saliou Mbacké daan na wax rek anhu boo mënta mel ne moom it waaye roy ko dana tax nga mën a raw say morom ko dana tax nga mën a raw say morom kon loolu it di lu mat a bàyyi xel mbokk yi jikko yi sëriñ baa nga woon moom ku dellu ci mini seigne Moussa Ka daanaka dal la ko teunkal du dóor ndaw du lo mak mënul gëntali dëkkam amul xaar mo yalla nit du xass nit ci wàkkaram loolu ci fi fi tag yam dam koy wax ba ne ko billahi yaa mat li nga don tag nti fati ko lol mu mat lim don ci don jaamu yalla don koy liggéey yonti bay don ko xamne day nek sangu jamono wuuf njaboot wuuf jullit di len taxaw ci bax bañ àgg fi àgg lu baax lu fi baax nun rek moo ko liggéey tasaare ko ci njaboot gi tasaare ko ci jullit ñi ñëpp di ci jariñu tey am na euh, ku fi ñëw xéewal yàlla wàcc jaare ko ci moom mi ngi àgg ci ñëpp ñu ko yëg ak ñu ko yëgut kon yàlla na ko yàlla fayal doole gu ngërëm